barrière mu ngi doon xool sengoor yi ñi nee nañ ko bëreel làmba gi ndaysaan làmba gi ndaysaan lamba ngoog ndaysaan bandi 40 ak barrière ñu ngi ci compétition bi mënul yomb ndax final la faw mu ànd ak calcul daw na jëli ko barrière daw na jël ko mais bandi 40 ans da gis sol na ko bandi 40 sol na ko ndeysaan bandi 40 sol na ko ndeysaan bandi 40 sol na ko ndeysaan bandi 40 ans sol na ba fàqan ko war ko ndomba bandi 40 ans kat api am na ko ba ci suuf wala déet yan waat ko dóor ci suuf bandi 40 ans Maodo daa nekk bandi 75 ans mbaa bandi 100 pour cent bandi war ko war na ndomba bandi 40 ans ko ndomba bandi 40 ans ko ndomba penalty la ci làmb war a rate bandi 40 ans mu ngi koy forcer ko buddi ko yor ci ba door ko ci suuf jël am na wala déet waa lii mu doon bandi 40 ans war na ndomba barrière mbaa du na ko ci suuf daanu na daanu na daanu na daanu na daanu